de la politique politicienne et au de la peur je veux dire les choses maa ngi koy wax sànq Elisabeth ñuy waxtaan ma ne ko écoute man bi ñu defee attaque boobu le premier juin parce que fa l'affaire bi jógee léegi dañ koy daté c'est le premier juin lañ defoon attaque sauvage boobu boo xam ne vraiment tout le monde a mois moi en premier man époque boobu franchement dama doon wax ne c'est cinquante cinquante je veux dire de mënoon na nekk aussi bien les gens qui avaient intérêt à cest dire les gens de Sonko pour dire les, les uh-huh. ah, man du ma du kii. Uh-huh. <laughs> de Sonko peut-être ma ne peut-être les gens de l'État man noonu laa ko waxee woon. dama doon suñu dama ne woon sa mathématiquement c'est bizarre parce que la première fois une équation à une inconnue qui peut avoir deux solutions xam nga loolu mënul am normal en mathématique. Uh-huh. mathématique donc pour nga am deux inconnues war am deux deux équations un système de deux équations à deux inconnues nga résoudre ko pour am nga trouver fii benn benn inconnu la parce que kenn rek moo war ma def loolu. donc mais fii ñaari inconnu lay am. ñaari inconnu benn inconnu boo boo am boo mën a am ñaari solution loolu mathématiquement amul laaj naa sama benn collègue mathématicien sax <laughs> mais <laughs> loolu amul mais <coughs> léegi man bu ma gisee li ñu doxal c'est-à-dire toog premier juin juin juillet août septembre octobre bu ñu dugg tey novembre cest dire plus de cinq mois ñu bàyyi les choses en l'état jéemu ñu réparer chapiteau boobu parce que chapiteau boobu lu ñu taaloon chapiteau. bii nekk droit. waaw waaw jéemu ñu ko réparer. Mhm. coude bi ñuy wax. Mhm. mais ce sont les bureaux qui mhm. la façade. jéemu ko defar. ndég boo dernier moment ñu def semblant. nga gis en même temps ñu commencé ay travaux énormes Albert ngi nii du ma bàyyi. parce que heureusement mu nekk comme témoin parce que bien que parce que ñu fa damay wax loo xam ne amul moom au moins. tous les jours mu ngi université xam ne li may wax ni donc daanaka moo gis nga. kenn mënut fa jaar. léegi dugg nañu carrément maintenant si biir université c'est-à-dire kii boulevard central bi jógee kii bibliothèque centrale. di jëm corniche. gas nañ ko tamit partout ak yéen kan di énorme tuyau kenn xamul sax lan la ñuy def cest dire ils sont en de créer les conditions d'impossibilité du retour des étudiants may wax tubaab fexe nañ daal bay. jaxase bagage ba nga xam ne pour wane ne. njàng mënul naa ne ah fii de kenn kenn mënu fi jàng. parce que xale yi war a jaar sax pour jàng am amuñ fu ñu jaar. kon yow gëm nga ni ba fii ba élection yi kenn du jàng. kenn na université moo tax ma ne la gëm naa ne ñoom ñoo def loolu. noo man li ma ah. jaaxal ci mbir mi mooy. man dama koy wax ah. chaque jour ma ne. université la fa nekk ci ay caméras de surveillance. justement nekk ko nekk ci biir Dakar. ci capitale et puis policier. foo sëqat caméra ñu jàkkaarloog yow dañuy wax ni mbir am na te mënuñu génne. non mais caméra yi kon lan lay jariñ. loolu déjà mais man tamit mais man j'ai plus le man man j'accuse la police elle-même man j'accuse la police. te bi noonu nag sama page ma koy waxaat de façon officielle fii mais police 365 jours 365 ils sont à l'université porte aussi oui, bien oui. aussi bien aussi bien kii corniche avenue Cheikh Anta Diop que li corniche sax oui waaw mm. léegi pourquoi ce jour en particulier ak seeni dragon aussi voilà mais, mais carrément pourquoi jour en particulier le premier j'étais pas là moo dama je le ah oui boobu nekkuñu fa non j'étais pas là <laughs> j'étais pas là parce que gars yi si buntu bi li ñu jaay rek du ko. yow quand Jérémy te bu ñu miite bu ñu am na blindé. voilà corniche am na benn ba ñaar si. yoon bi dem euh, cité cité am na blindé. grande porte même kii boobu sa stade kii boobu sa fi toog même kii si buntu ESP carrément am na kii. waaw waaw am kii station épuration boobu. waaw soo jigéen noonu kii bi rond fa posé. donc moom a jaaxal comment il faut <laughs> faire ce ce ce commando là de non c'est pas y a y a man je te dis que y un problème te nañ ko fay ñemee wax quoi qu'il arrive. en tout cas man li may wax mu ko ragal et puis même voilà. même même guérilla du c'est trop dire même émeute bu amee mhm. lu waaye def am na ku lay filmer soit moom si biir këram mais université ba léegi génnee ñu benn film wala photo pourtant recteur bi pourtant recteur bi soi-disant nee na dégg naa ko mois bëlee defe naa ou deux mois avant mu naan am nañu ay film yoo xam ne jox nañ ko enquêteur wax na ko ah, ñoom ñu am nañ ay moom la recteur wax na ko lii ñëpp dégg nañ ko léegi on apprend ko on apprend ko et puis ah. problème bi mooy. te loolu du affaire bi affaire bi yëpp mooy d'ailleurs ñun SAES e on a montré que et montré démontré que les conditions techniques de reprise des enseignements sont réunies. yéen ñiy jàngale. oui et on a refusé parce que loo amul benn texte université que ñuy jàngale à distance moo doon SAES e man je suis militant du SAES. oui a refusé cela parce que on va pas conclure à sacrifier les étudiants mm-hmm. et ça rapport aussi avec li li ma la waxoon ne ministre bi waxoon bu mu wax ne ñu mënuñu rek nañu jël nañu def li nga enseignement en ligne gis nga ils sont en de saboter man j'ai l'impression qu'ils sont dans entreprise de sabotage xam nga naa ne wax naa benn affaire gars yi ne tu es leen mais ñii sont des Khmers marrons comme les Khmers les Khmers rouges qui avaient <laughs> les Khmers marrons parce que parce que du bu ñu ñuy bëri loolu la ñuy def te bizarrement à la décharge quand du président Macky Sall bi mu ñëwee quand même euh, jël kii bi il a mi même mis dans les infrastructures trois cent deux milliards. les infrastructures. oui oui euh, ah oui. après man avant may pare sax déjà il était dépassé woon na ko parce y a eu des problèmes bon et cetera sur les marchés tout ça ba mu ñëwoon presque cinq cent milliards tey wóor na ma ne dépassé na ko encore et pour quel résultat moo tax man je trouve que bon. le président il est malheureux il a inauguré stade yu kenn xamul mais inauguré inauguré inauguré université par rapport ak islami ah, université Amadou Mokhtar. bon ça c'est bon c'est université d'accord mais c'est une grande école en fait loolu mu grande école la rek parce que d'ailleurs c'est un gouvernement d'école et d'institut boobu c'est d'ailleurs nañ ko dévoyé parce que au début c'était une université normalement avec des UFR après ils des Zekone institut ñoo ko nekk. donc mais ça c'est xam naa calcul là en fait pour pouvoir faire faire échapper donc euh, faire échapper kii ñu en fait ñu génne daal fexe ba nga xam ne dañu def semblant que dañu leen di orienter étudiants mais en fait da ngay def ay tests comme à l'ESP pour entrer. Okay. pour pouvoir sélectionner. Mm-hmm. pour pour en faire en fait tudd ko mais une université soi-disant d'excellence. Mm. voilà donc en réalité c'est ça quoi. donc c'est c'est vraiment malheureux quoi mais heure bi ñu toll nii franchement ça fait déjà plus de cinq mois il y la plupart des facultés peut-être médecine je suis pas sûr defuñu sa seen évaluation premier semestre donc su même suñuy reprendre woon dana am xanaa remédiation peut-être d'un mois pour remettre les gamins enfin les xale yi ñu tàggat leen tuuti def évaluation yi qui peuvent durer longtemps par rapport ak li ñuy wax sànq c'est-à-dire lii ak donc année scolaire bi bu ñu xefee dina def deux ans ba pare oui ba pare def seen second semestre te bul fàttali ne bachelier yaa ngi toog di xaar